actualité bi ñu nga donc ki di Diallo objectif dem ci coupe du monde bi mu koy xamal Aliou Cissé ki di donc Youssouf inquiété donc par rapport au coupe du monde aussi ak suñu nga xamné trophée COSAFA bi ñom dal ñoo Gardouki, félicitations voilà ñu commencé sax li donc les poulains de Mamadou Diallo Mamadou Diallo également félicitations hein. le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer Nous ñoo dem nag tournoi COSAFA bi nga Nous avons dañu fa invité dóor équipe bi di Égypte nag juróomi bal ci ñett kanam dayo et je pense qu'aujourd'hui avons nag un favori pour Coupe d'Afrique, le Sénégal tenant du titre le Sénégal attendu mais principal adversaire au Sénégal pour man day le Maroc dirigé par l'ancien sélectionneur euh, du Sénégal Mouingala. Silla mais que dire également de Alseyni Ndiaye encore une fois nous avons le ko meilleur gardien du tournoi comme on dit hein, Saf Dege comme je l'appelle je l'appelle Saf Dege quoi donc euh, c'est un capitaine boo il y a na équipe nationale du Sénégal a na expérience mais aussi c'est un gagnant gagneur c'est un battant donc qui est Alseyni Ndiaye donc mon dal, dañ koy ñaanal un en champion que dire également de Sila, mi nga xam ne moom lañ mu of the match hein, ci final bi contre Égypte match bu ñu disputé le wana, hein, Sénégal nag ñaari bu d'écart la ko mujjee jël nekkoon loo xam yi il fallait que Sénégal gagne mu nekkoon aussi premier test grandeur nature bu ki nga xam ne donc kii di Mamadou Diallo et test réussi les U23 nak ak ki nga xam donc leur entraîneur Demba Mbaye ñoom nag dañuy dugg convoqué dafa convoqué plutôt 32 jours, fanweeri jour ak juróom euh, fanweeri jour ak ñaar plutôt fi nga xam donc terrain d'entraînement bu François Abokane, pour jëm préparer deuxième phase ou élimination éliminatoire bi donc ñu wara a dajeek li nga xamné moy équipe bi donc euh, di euh, plutôt Burkina Faso nek match yoo xam ne match yu am solo ki kii di Zambo Anguissa nag moom nag tey Napoli ñoo nek tête du classement mu dugal doublé Zambo Anguissa donc il est en forme je ne sais même pas pourquoi waa duñ ko mais ils ont besoin de lui ki nga xamné nak mom moy Hervé Renard dis ngeen ko ni euh, donc Arabie Saoudite bu mu nek mom ak soxnam ki nak mo nekkoon ex femme bu ki nga xamné moy donc l'ancien entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal Bruno Metsu ndem si donc Hervé Renard également un amoureux du Sénégal Sénégal ki nga xam ne nag mooy donc Paolo Maldini nee na ba muy fu football ak léegi sama carrière àdduna wërngal këpp ñetti joueur laa gis ne ay kàngam lañ muy Ronaldo bu Brésil Messi ak Diego Armando Maradona pour man ñoo daax football ci àdduna musuma gis joueur yu am dayo gi ñu même am am talent bi ñu am Liga donc FC Séville Atlético Madrid ah. donc tey la Mallorca Barcelone également Real euh, Madrid ak Osasuna nekk jongante yoo xam ne mooy nekk derby yoo xam ne gars yi waru leen ko raté sans oublier également hein, avec Vrayo Vallecano de Pate Ismaël 6 la Guinée hein, Guinée la Guinée Guinée tout tout parce qu'on me l'a dit wa CAF dañu nangu di Coupe d'Afrique bi dal di koy euh, relancer nak Sénégal bokk na ci ñi nga xam dañu ay candidats mais aussi Maroc Maroc mooy sa sax grandissime favori mais les Guinéens qui ont été déçus liñ gën ko retiré rouge de plaisir Arsenal et également ki nga xam moy Gabriel Jesus ah, ñom tay dadi ñoo di dor ñi Tottenham d'antonio Antonio Conte Tottenham sent encore une fois Pape Matar euh, Arsenal bi nga xam actuellement pour man depuis championnat ba ñom ñoo football ci championnat mais également li leen xaw moy charisme mais aussi William Saliba 100 de duel réussi, 100% également de duel aérien réussi. Actuellement, il est en feu William Saliba mon bon modèle aussi, Arsenal ba Ben, kanam la woon xar kanam la daal di wane tey nag doute bu garaaw sax la c'est ki xam est Harry le premier joueur anglais pour atteindre la barre des 100 buts à l'extérieur donc Harry Kane donc beaucoup na ci battre record mon moo détenir plutôt record de détenir record actuellement donc Harry Kane l'attaquant anglais donc de Toto Nam Habib Diallo mom limu wax leen Habib Diallo wax na ak li nga xamne moy bëgg bëggum adressé ko ci équipe nationale Sénégal ak Aliou Cissé mu ne sama bëgg bëggu moy nekk ci Coupe du monde mom souhait est c'est d'être présent à la Coupe du monde et pour man sincèrement Abdou Diallo à Diallo plutôt actuellement koy en ah, club maintenant équipe nationale modeste, mais je l'ai toujours dit pour man équipe nationale le problème ne vient pas forcément des joueurs mais aussi est-ce que système est adapté ou non mais aussi quoi qu'on puisse dire aussi une responsabilité en tout cas on lui souhaite bonne chance pour mon attaquant yi fi ni que le premier le deuxième mm, attaquant bi actuellement il est plus performant en club qui n'a di Youssouf Sabali moom moo inquiété parce que Youssouf Sabali gars des blessures à répétition bu Youssouf depuis quelques temps monte a enchaîné il est li nga donc donc euh, championnat bu mu amul blessure fi mu ne nii ñu ngi dem ci coupe du monde bi lool dalal nañu ci coupe d'afrique bi ñaanu ñu yalla mu dalaan ci coupe du monde parce que c'est un élément important de l'équipe nationale du Sénégal du dispositif de Aliou quand Youssouf Sabaly est là le Sénégal ne perd presque jamais et que tay bokku na ci élément essentiel essentiel tax actuellement dal dañuy ñaan mu am wër ak jamm parce que son cas commence à inquiéter gars yi loolu moo information bi mu bëggoon joxe le ban gis-gis ngeen am nak ci li nga xamne Abib Diallo bëgg-bëggam dem coupe du monde est ce que vous pensez qu'il a les talents Qui dit également Youssouf Sabaly entre autres wéy lay laay di abonné ja Jeff.